mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam ci 30 minutes chrono ci solution info TV di nuyu ñëpp di leen gërëm di nuyu El Hadji Modou Diouf topp Ablaye di nuyu Fallou di nuyu Sandiogu Sonyibu ak groupe solution yëpp Aïcha Assène Mesere ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñi ñuy seetaante di safo ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm bu baax tey jii ñu dëkk ci ay mbir yu wuute dinañ ñëw ci Ousmane Sonko ak barricade bi arrêté bi ñu arrêté Walf ak yenn kàddu yuy génn euh, yu ci mel ni ñoom seex Yérim Seck ak ñoom seen dinañ ci ñëw ak a Bara Ndiaye mi ñu téye ba waxtu wi dinañ ci dëkk lu tax ma jël ñetti yooyu lié leen mooy noppiloo gi noppiloo wal fajri ci tele bi mais aussi barikat bi am kër Sonko kenn gisu ko kenn dégg ko Cheikh Bara Ndiaye mu ñu tee ñetti yooyu yëpp boo gisee ma koy tàmbalee dafay ñetti bunt yoo xam ne bari na lu askan wi daan jot ci xibaar foofu la nga ko daan jotee maanaam wal fajri bari na ci loo xam ne ci xibaar daan génn wal fajri la doon jaar bari na ci ñoo xam ne alxamis dañ daan xaar kii di Cheikh Bara Ndiaye bu tappalekat yi waree réew mi semaine bi yépp ci àllarba ji parce que bari na émission politique yi am Cheikh Bara bu ñëwee jeudi wax ci lu leer décortiquer wax ji analyser ko ba ñëpp xam wax yooyu lan moo ko lal ak lan moo ci waxu caaxaan bari na ci ñoo xam ne. buñ mësaan di def dara ci réew mi ba dara xew dan daañ wax naan nan xaar Ousmane Sonko bu pro waxee dafa bokk ñetti kàddu yu ñuy gën a déglu ci réew mi mooy kàddu Cheikh Bara Ndiaye kàddu Ousmane Sonko ak kàddu Walfadjri ñetti kàddu yooyu yëpp ñu xëy tëj ko kenn déggatul Sonko kenn déggatul Cheikh Bara mais Walf aussi bu dee ci tele bi ak ci canal beeg TNT bi kenn déggatul leen te ñooñu gëm naa ni mooy ñun doon gën a jox nopp dafa laaj analyse nag lu tax ñu xëy ne ñooñ duñ waxati léegi jàngat bi nga ci njëkk a def mooy jamono ji ne ñooñ duñ wax bàyyi nañ yeneen télé yi ñuy wax mais di wax li leen arrangé mais aussi di invité ay nit yi leen arrangé nit ñoo xam ne tey jii ñoo monopoliser li di espace médiatique bi maanaam quand le sang n'est pas là les souris dansent loolu la wax ku mu neex nga wax lu la neex parce que Cheikh Bara mi ngi ñu téye ku mu neex nga wax lu la neex parce que Ousmane Sonko mi ngi ñu tëj këram tëj làmmiñam ku mu neex nga wax lu la neex ndaxte Walfadjri waxatul loolu nag moo tax gars yi di lapp lappi. plateau bu ne ñu toog mais ay fan a ngi nii ci ginnaaw déggatoo leen woon parce que xam nañ ni kàcc gu nu kàcc ci réew mi waroon ñu fen ko fi Cheikh Bara dina ñëw jeudi décortiquer ko ko wax ko yee ci nit ñi nag ci anam goo xam ne ci olof bu leer parce que gars yi bu la bëggee nag dañuy làkk tubaab wala ñu lay dugal ay loi di la dugal yoo xam ne ñoom sax ñu ko firi ndaxte baat bu ci mel ne corruption de la jeunesse ba tey jii ku ko mën a firi ci réew mën gisaguma ko ci olof du ñàkk ni bu Cheikh Bara Ndiaye nekkoon firil ñu ko du ñàkk ni buñ bàyyi woon Walfadjri mu wax ñu firil ñu ko mais aussi bu du ñàkk ni bu Sonko mii nday mbi gi ñu teg ko ci kawam buñ ko bàyyi woon mu génn wax ak sénégalais yi dina wax lan mooy position ak lan mooy taxawaay ci corruption de la jeunesse ndaxte kii di Ousmane Sonko ko am ay information la lu tax ma ni dañuy lapp-lapp yi di wax waaye wax boo xam ne du ànd ak sago bokk na ci Cheikh Yérim Seck génn man bariwul lu may seetaan depuis que ñu tëj Walf di seetaan benn émission ba mu jeex tàkk waaye démb émission bi dafa maa intéressé benn ndax Omar sekk Ndiaye mi ñu invité woon boole kaak Cheikh Yérim sekk loolu loolu bokk na ci li tax émission bi intéressé na ma ndaxte mun na am bu doon seex Yérim kase du ma ko seetaan man ndax gëj naa seetaan Cheikh Yérim mais Omar sekk dañ naan ko gàcce ma man mii moo formé bari na ñi ngay dégg ci réew mi ba ci Papa Ngagne ñoom Ahmed dara moo leen formé bu ñuy wax oxygène tey jii di wax ña fa jóge ñëpp Omar Seck Ndiaye da ci bay weer wu am solo loolu tax démb bi Cheikh Yérim di wax ak moom ma jël ñaari nit yi comparé leen man ndeysaan xoolal rek seex Yérim moom waxam ji li muy bari bari rek mais doo dégg kuñ la la Cheikh moo ko tabax ci réew mi tabax wala kii Cheikh Yérim moo ko formé Cheikh Yérim ba mu dalee wax ci àddina ba léegi du ne ma maa diw du ma maa tabax diw du ne maa lii lépp ci boppam la koy jël maanaam moom day kàbbar ci boppam rek sëlmal ci boppam léegi nag ma jàpp ni cat da jàpp parce que bi mu jugee Jeune Afrique ñibbisi ci réew mi doon ñu naw doon ku nit ñi daan déglu dafa mës toog mu ne à 40 ans lépp lu ma doon ñaan yàlla suñu borom defal na ma ko. dem naa màkk def naa li xaw moom day vanté wu di jaay boppam moom day kàbbar ci boppam di sëlmal ci boppam ci boppam la nekk. démb mu mel ne ku demoon école parce que bi mu togg ak Omar Seck ku seetaan émission bi da ngay sentir ni Cheikh Yérim des na am xam-xam nag am na kilifa gu ko ci réew mi dafa amoon jamono rek médias yi bariwuñu mu jóge ci tubaab yi nit ñi am complexe Jeune Afrique fu ne ñu teg ko fa mu toog di théorie ba ñëpp gëm ni Cheikh Yérim ab prophète la bu yàlla yónni lu mu wax noonu la wala boog daf lay wax sax loo xam ne ñëwagul wala mu lay gisaaneel loo xam ne yegsiwul mais daal émission booy jàngat day mel ne ab professeur moo toogoon nag ab élève bu nil di ko jàngal ndaxte boo xoolee toogaayu Omar Seck njaay heure bu ñu duggee ci mbiru journaliste mu wax ci lu Cheikh Yérim mënta firi ci wàllu politique mu wax ci lu Cheikh Yérim mënta dindi dem na sax ba Omar sekk ndax da far wala yow daal doo wax lii ci sonk wala lee Omar Seck bu faree mais Cheikh Yérim xanaa da doon par parloo parce que par parloo mënta weesu ngay yëkkati kàddu di ko jëmee ci ab parti politique jàpp ni Sénégal moom dafa mel ne démb la juddu wala bërki démb maanaam bu Pastef ñëwee nga bëgg a jël lépp loo xam day gàkkal rek nga bëgg ko tey ci politiciens yi bees yi te loolu dafa xew dafa am un discours boo xam ne dafa tàmbali di am ci réew mi mooy politiciens yi bees yi ñoom ñu fi ñëw démb lu waaye politique bi démb xamuñu lii maanaam temps yi dafa xew parce que am na benn soxna soo xam ne moom moo ko njëkkee ci émission am ak Ahmed Aïdara du ma tudd turam démb seex Yérim nga dégg ko mu ñuy yóbbu foofu ñooy saaga sëriñ si ñoom ñoo violent ñoom ñoo def lii ñoom ñoo defle ñoom ñoo li ñun ànduñu ku ci ku saaga sëriñ ànduñu ku violent ànduñu ci ku yàq ànduñu ku tooñ man yooyu ànduma ci parce lu ma dul def du ma digal kenn waaye Cheikh Yérim boo waxee lii wax la ca des boo nee yi Adji Sarr ak Ousmane Sonko yi ñaari nit la mais yow lan moo ciy soyoon ba mu lay jaral di toog ci plateau di ci wax bu doon ñaar mbir parce que am na fi ay dossiers yi ñaar nit sax kenn teg ko ci plateau di ko waxtaanee kon décision Adji Sarr ak Ousmane Sonko dossier boo xam ne lu toll ci fanweeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan dossier boo xam ne ay kër tas nañ ci dossier boo xam ne ay nit dugg nañ ci kaso dossier boo xam ne tey jii waa bitim réew mi ñu ngi koy waxtaanee. dossier boobu ñu bëgg ko yemale rek ci diggante ñaari nit wax ji kay moo doon nga nangu nii lan doon sosal Ousmane Sonko du dëgg ndaxte ñaari at ñu ne diw dafa violé diw dafa menacé de mort ñu dem ba wax jooju teggeeku indi corruption de la jeunesse mais ñu waxante dëgg daf ci am loo xam ne di ko layal sax bëgg nekk avocat du diable la tey jii ke dafa waroon fekk képp koo xam ne jiñ nañ la ci réew mi ni danga nga àndoon ak Ousmane Sonko tey ji ñu woo la takkal la brassard na la gàcce ngaalaama yow de nitu dëgg nga ndaxte ñaari at a ngi nga doon am xiini mini ci lii ñu dem ba bis ab juge taxaw ne viol amul lii di menace de mort amul jamono jooju Cheikh Yérim Seck toog di layal berte naan berte bi ñi ciy dugg ak ñi ci mës a dugg ak ñii nii man maa ngi nii mosuma dugg ci terre bi lu ma yàqal terre baax na mais mosuma ci dugg berte mën na fi nee ba jóge fi du ma fi dugg parce que nit ku ne ak moyen de transport bi ngay jël yedd goog nga doon yedd ndaw ñi nag njëkk ko sa bopp dafa gën njëkk ak sa bopp dafa gën parce que fi ngay taxawee di wax ñaawlu berte bi ñu yàq mais waral nga fa taxaw ñaawlu fanweer yi nit yu ñu faat waroon nga fa taxaw ñaawlu mineurs yi ñuy dugal ci kaso bi ndax sa sa doom yow mineur biñ ko jàppee ci ay mbir moom Cheikh Yérim Seck pourtant da ngaa wax ba génnee sa doom ci kaso bi da ngaa wax ba génnee ko ci sénégalais yi ànd ci ak yow parce que nit ku ne danga koy nat ci sa bopp kenn du yéene nit kaso kenn du yéene nit dee waaye fi ñuy méttitloo ay BRT bu yàqu wala ñu fay métti lii ak lii comme ni ko ministre Antoine Diome defee dem visite BRT bi dinañ ko sécuriser mais nan sécuriser sénégalais ba benn sénégalais du ñàkkati bakkanam nan sécuriser sénégalais yi ba nervi du fi génn génnati di rey nit nan sécuriser sénégalais yi ba duñ fi nekk naan ay milice privée nan sécuriser sénégalais yi ba duñ jëlee ay nit bitim réew di leen delloo naan ñoom ñoo ñëw di yëngal réew mi. noonu nu fonkee BRT fonk ko Auchan fonk ko Total ba jël armée bi ne garde leen waay waay nan ko fonkee askanu Sénégal nan ko fonkee nit ñi ba kenn du faatooti nan ko fonkee sunu alal kon tey jii yow mii di ñaawlu lool moom Cheikh Yérim waroon na ñaawlu loo xam ne mi ngi gàkkal image yu Sénégal ca bitim réew mooy ab xale bi ñu jël def ko bouclier. dafa am sam benn xarit bu nekk en Allemagne nee boo demee Allemagne presse allemande bi ñu bari dañ ko traité ñaawlu ko rawatina organisme yi yëngu ci wàllu ak ak yelleefi doomu aadama bu yeesoo bakkan yi ni faat ak xale yu ñu jàpp di ay mineur mais xale bi ñu jël def ko bouclier image boobu lu ko gën a ñaaw ci àddina amul. Cheikh Yérim waroon nga ñaawlu loolu Cheikh Yérim barikaat gi ñu def ca kër Ousmane Sonko te yoon diglewu ko amul këyit gi firndeel ni lool am na ba tax tey jii maître Abdoulaye Tine doon avocat doon garmi bind lettre ouverte jox kii di président de la république ngir loolu nu mu ñaawee ak nu mu ñaawee ci image Sénégal bitim réew Sénégal yàqu na bitim réew kii demati bitim réew na nga takk ay noir fumé te xam ne jaratun dara ci àddina bi Cheikh Yérim Seck yow ma xam la nekk bitim réew nekkoon Jeune Afrique waroon nga ñaawlu xale boobu ñu jël ko def ko bouclier Cheikh Yérim sekk waroon nga ñaawlu xale yi ñuy faat mais waroo woon taxaw Sénégal yépp di la dégg nga ni mbiri Ousmane Sonko ngir réew mi am jàmm réew état bi da ci war a taxaw mu jeex état bi da ci war a taxaw mu jeex nan la koy jeexalee nga ne bu doon quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais dañ ciy dee jar na ko nga wax ko assumé ko Cheikh Yérim baat boobu bi nga koy wax xanaa bu dee di am yaay njëkk a dee yow ko sa njaboot parce que ñun ñaanuñu benn bakkan bu dee ci réew mi ñun ñaanuñu ko. benn bu dee ñun rëccu nañ ko benn bu dee ñun métti lu nañ ko bu doon ni Ousmane Sonko yoon dafa ne moo violé moo menace de mort te sénégalais yëpp war a faatu pour man bu dee ni jàpp Ousmane Sonko mooy indi sénégalais yëpp war a faatu même bu doon dafa rey nit wala mu violé pour man bàyyi Ousmane ko moo ko gën ndax bakkan dafa fort quand tu l'as dit ngañ dafa jàkkaar daf lay xoolaat parce que sa nit la sa xarit la dalaa bëgg. mais xam na noonu ne yaa ngi mbëkk miir bi yaa ngi daanu leer yaa ngi jaar foo xam ne kenn xaaru la fa amoo droit wax loolu amoo droit boobu mooy quatre-vingt-dix pour cent sénégalais bu ñu ci deewoon jar na ko amoo droit boobu fan nga teg sa bopp fan nga egg ci réew mi lan nga liggéey réew mi ba mën a yëkkati yooyu la kàddu di ko wax Sénégal yëpp di la seetaan mais heureusement da nga toogoon ak borom xam-xam démb mënoo woon def émission bu baax. ndax danga nga toog ku la ëpp niveau da nga toog ku la sut da nga toog ku la ëpp alliwa loolu dafa dafa feeñ ci émission bi di nga Sénégal dañu yàgg nax billaahi dañu yàgg nax daf fi amoon ñaar ñetti tele yi fi nekkoon ay Cheikh Yérim jóge ci tubaab ya ñu jëli fee benn ma jàmbal jële ay nit imposé ñu ko nit ñooñu toog ci média yi di ñu gëmal lu ne mais bi di réseaux sociaux amee géew bi gën a ibbeeku xam-xam gën a yaatu nakate ñin doon jàppee ay boroom xam-xam ci réew mi duñ boroom xam-xam loolu tax bi muy dal ci ñoom Finwil saar ak Boubacar Boris ak ñoom euh, Bougar Omar Seck nee na ko intellectuel jàpp ma ni ku jàng la rek yéy kayitam yor ay lijaasa intellectuel leneen la kon Cheikh Yérim dafa doon jéggalu sénégalais baalu leen àq ci yenn kàddu yu mu yëkkati dem ci émission am Pastef gi muy wax naan. parti la lii lu ne mu dugal leen ci sikkal leen di leen diaboliser dem bay def météo di def prophétie ci parti bu nu mën a tas ak duñ ko tas ay report élection ñoo ngi seen fu Pastef googu mooy benn parti ci Sénégal boo xam ne bu ñu dee daje drapo Sénégal la ñuy jël def ko seen mandarga fii parti bu fi daje sa drapeau parti ngay indi boo demee ci fi président di waxee ca pale ba armoire yi boobu nekku fa drapeau Sénégal moo fa daan ne tey jii boo fa demee marron beige nga fay fekk mais Pastef mooy parti boo xam ne raayey réew mi ak mandargay réew mi la ñuy doxee vert jaune rouge parti bu dee Pastef danoo violent amuñu teggin joxuñu cër kenn ay nouveau type de sénégalais lan mais nan leen nangu ni ay patriotes lan Pastef mooy benn parti boo xam ne fépp fu ñu daje bay dem lépp lu doon mbalit dinañ ko tonn yóbbu mooy parti boo xam ne lu seen leader wax. ci lay ànd kenn rek la ñuy déglu mooy Ousmane Sonko te discipline boobu bariwul ci Sénégal ñu koy doxee maanaam jël benn nit rek déggook moom ànd ak moom ci lépp fu mu leen joxoñ ñu dem lu mu leen tere ñu bàyyi kon boo ñaawloo ni Pastef du doxale mais war nga rafetlu ci beneen point bi ni parti boobu di doxee man nag bokkuma Pastef mais dafa jotoon ñu wax ak Cheikh Yérim Seck nee na Sénégal dafa war a nekk état de droit ñu teg ko ci yoon Cheikh Yérim Sénégal bu tegoon ci yoon est-ce que nga toog ci télé bi actuellement dañ ko ci viol ana doomam ñaata doomu Sénégal lañ fi jiñ viol tëj leen fukki ñu tëdd ci kaso bi àtte leen ci daan leen ci ñu koy tëdd nga mës a gis nit ku jiñ nga tëdd ñaari at wala nga tëdd juróom weer génn da ngay doon Cheikh Yérim Seck wala nga doon doomam. kon bu yoon doon dox est-ce que loolu dina ñun yéenewul la kaso yéenewul ko sa doom man bu seen jàmm ngay am ba tey jii lan la ji ñoon ci viol gëwuma ko sa doom yoonam nekkul ci li ñuy def moo tax ñu ngi koy masawu mais fàtte xaju fi ak yeneen i dossiers yoo xam ne tudd na la ci pourtant yaa ngi toog ci télé yi di dox say soxla di dem di di dikk man dama lay encourager ci loolu parce que man je toujours dit Cheikh Yérim sekk naw naa ko ci lenn moom malgré li ñuy wax ci moom lépp bu waree génn wax day génn wax parce que man dama gëm ni opinion nit da ko war a am nit dafa war a am liberté di wax xalaatam ak li mu gëm même bu ci ñëpp àndul mais nga ñi nga jàkkaar loolu nga respecté leen nga jox leen cër mais nga am foo leen féete te ji nga àddina il faut ngeen tey ci mbiri Ousmane Sonko tey ci mbiri aji saar ak yeneen parce que ëllëg du andu reer te lu mat a seet la xamul tax adduna booy bëgg bëggal nànk mais booy bañ bañal nànk mais am na ñoo xam ne bañ gin bañ Ousmane Sonko bañ gi fi jégg dayoo te xamuñu ëllëg lan mooy xew démb wax nga ko ci politique ku ne woon Barthélemy ak Sonko dinañ dem bay xaxarante ci politique mais wax boobu nga wax jeunes yi pour ñu teey ci nitu politique mais aussi yow dama lay wax pour nga tey parce que ëllëg kenn xamul lan mooy xew. wala tax yenn bañ yi jëme ci nit jaru ko booy bañ Macky sàll bañ ko nànk boo koy bëgg bëgg ko nànk mais booy bañ ko bëgg ko bañ ko nànk mais boo koy bëgg bëgg ko nànk nit ku ne day am lu muy desal bu ëllëgee ñu mën laa setal mais munoo toog ci plateau gëm ni lépp da ko war a wax li nga gëm yëpp da nga war li nga xalaat yëpp da ko war a wax ci koo xam ne ëppoo xam-xam nit ñi ëppoo leen daraja ëppoo leen àlliwa lu dul ni suñu borom rek moo la cëral ndax dit dàq na la jàng dàq la mbubb dàq la sañse te toogul fi nga toog yow seex Yérim kon mu doonoon rek recadrer Cheikh Yérim pour que mu dal mu dal important surtout fi réew mi toll li soxla mooy dal comme ni maître Doudou ndoy def li maître Doudou Ndoye def loolu lañ doon xaar ci kilifa nga ñëw def ko maanaam réew mi toll na ci benn équation nekk ci benn xéni mi ni mais nga ñëw di wax yoon wun mën a jaar pour que réew mi dellu soit ci jàmm fi mu nii mii xalif généraux yi di juristes yi di ña nekk ca dialogue ba ak ñeneen ak ñeneen li ñuy xaar ci ñëpp xam mooy lan wan yoon wi ñuy jaar pour génn ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba li amoon ci réew mi du waratul am fanweeri nit faatu ay deux cent milliards ñu ñàkk ko nit ñu bari ñàkk seen liggéey kenn mënul dem kenn mënul dikk suñu réew attanul loolu léegi képp kuy wax mbir mi du nan yóbbu Ousmane Sonko kaso de du solution nit ñi mbir mi du Ousmane Sonko warul nekk candidat de du solution mbir mi du ñi ci kaso bi kenn du leen bàyyi da leen àtte comme ay terroristes du solution fii fi ñu toll ni solution bi mooy ñu xool ban bunt lañuy jaar bay génn ci lii ndaxte nag mos nañu ñetti fan lu jege fanweeri nit ñàkk seen bakkan Sénégal doon la risée du monde adduna bi yëpp diñu ŋaw du ŋawtee ak duñu ŋàbb dem ba au commissariat des droits de ci nation Nations unies ne dañuy def enquête ci Sénégal ak bakkan yu faatu ak nervi yi nervi yi ñu doon nëbb nit ñi yi ñu doon nëbb nit ñi dem ba tele tubaab yi duñu leen wan xale yi di ko wane ci réseaux sociaux yi tey ji ñu war a def enquête ci ñan ñoo faat xale ya deewoon mars deux mille vingt ñan ñoo faat xale yi faatu ndaxte am na luy ñuul ci sow mi Sénégal war a sëgg ci lool fexe ba lool du amati te gëm naa ne mars deux mille vingt et un li xewoon bu doon réglé woon nañ ko dun egg fii duñ egg fii. fii ñu egg nag leen fa yóbbu yëpp mooy force reste à la loi état de droit fii ku fi yëngatu ñu duma la ay Moustapha Diakhaté ay wal Walfadjri dañ ko war a tëj taggal licence bi rajo bi mag yi ñi lay digal lool dañ lay nax ñi daan digal Ablaye Wade ñëpp ñi ngi sawet ñëpp ñi ngi sawet ji nga situation bi mu mujj dund ñëpp ko réccu ba ci président Macky Sall gëm naa ni neexu ko. parce que mënoo yor sa njaboot ñuy faatu même bu dee kenn sax ëpp na waaye ñi naan la da ngay gën a dëgëral ñi la da ngay gën a dóore ñi naan la da ngay gën a jàpp ñi naan la da ngay gën a tëj ñi naan la seen làmmiñ ñaata nit lañ fi tëj arrêté nañ signalu faj fajri mais lu mu jur est-ce que dafa tax ñetti fan Sénégal yëngu ko est que dafa tax xeex amul est que dafa tax fitnaamul kon solution bi du tëj solution bi du arrêté ay signal solution bi du jàpp ay Cheikh Bara Ndiaye wala keneen ak keneen solution bi xam mooy lan di demee xel te bañ a demee xol te bañ a dégg ñi lay bëmax ci ni ñu mel ne ay Cheikh Yérim sekk ay Moustapha Diakhaté ak diw ak diw bu ñu ko doon lim du jeex bu ko doon lim du jeex parce que adduna bi jamono yi dafa tuuti ndaxte réseau sociaux yi moo tax léegi wax ma la réseau sociaux yi mais excès sax bi ñu yóbbu. bi ñu yóbbu maanaam Sénégal mënoo woon xalaat ci àddina ñu ne dañuy dagg internet mënoo koon xalaat dem nañ ba egg foofu ñu mënoo woon xalaat ci àddina ni dinañ dagg ab signalu média un mois tawal fajri waxu fi lu kenn waxul defi fi lu kenn deful dama leen di jox ay exemple ci exe yi nguur gi di def danoon wal fajri day xam taal bi wal fajri sonk la àndal wal fajri lii wala lee pour l'histoire Sa Ndiogou yaa ngi may dégg moodu yaa ngi may dégg ñii seetaan di déglu ñi ngi may dégg amul jamono bu Macky Sall toogul wal fajri doon léeg ay affaire am avant mi falu ñu jox ko tribune di ko couvrir mais mosuma dégg benn yoon bu Abdoulaye waat ne nan dagg signalu wal fajri te pourtant boobu Sidi yi ñi nekk wal fii tey ji Sidi leen gën a tàng foof mais daa foo am Abdoulaye Wade eggu foo woon ak kii di Sidi Lamine Niass ak Walfadjri ci jamonoy 2011 2012 dama dama dama fekke nag dafa amoon ay tele yi fi nekkoon ak ay journaux yi fi nekkoon doon xeex a nguuru Abdoulaye Wade bu baax a baax demoon na ci ba yenn ci rédaction yi am ñu doon wax naan mus naa dégg nit assumer ko ñu ni ko gis na ni ce journal day xeex a nguur Wade duñ bind lu baax ci nguur Ablaye Wade duñ lii mu ne ba ma koy def maa ko tey te et je di dit à tous les membres de la rédaction ñi mu doon liggéeyal mooy nguuru Ablaye Wade gi bu fi desee yéen ñëpp di ngeen ñàkk seen liggéey ndaxte man lay xeexal ak sama journal bi élection yi moo tee ñu jële fi journal bi maa ngi jéggul élection yi moo ñu jële fi journal mu jël ligne éditoriale am def ko contre le PDS et le régime de Wade loolu am na fi est-ce que Abdoulaye Wade xamoon na loolu mais est-ce que dafa nekkoon ci logique gu journal boobu ñu retire ko amoon na fi benn tele boo xam ne boobu mi ngi doog a juddu nekk groupe de presse bu mag malgré li ñu doon xëccoog Abdoulaye Wade yépp dem ba seen ligne lépp loo xam ne day naqari nguuru Abdoulaye Wade bu ñu xëyee ci lay journal gontu ci fanaanoo ko pourtant malgré demoon na ñoom ba seen lider lider génn di politique dem ba nekk candidat dem bay organise ay concert politique naan ku ñëw ci concert bi maanaam di def propagande contre maanaam régime de Wade maanaam patron de presse ba dafa mujj engagé wu politiquement loolu la ñu naan Cheikh Niass waru woon wax lii waru woon wax le peut-être am nañ ci droit de mais defu fi lu fi kenn deful ay patron de presse yu dugg ci langue politique yi di politique ba tey ji am na fi Bougane mi ngi koy def est-ce que da nga mës a dégg ñu ne. nan retirer licence su Sen TV est-ce que da nga mës a dégg nan retirer licence su TFM Cheikh Niass takkul dàllam nan di politique amul mouvement amul parti peut-être wax na suula le de l'émotion parce que dem ba ci jotaay ñu benn tooñ dafa doy waar bu doon ni Walfadjri da nga ko tëj ci ni diw moo wax li wala moo def li waaye li ñëpp seetlu mooy kenn mu wax li la def wala lee yamuñu ci tëj Walfadjri mais danoo tëj seen i nit teg ci takk seen biir ne alal ji fa war a dugg sax te askan wi dajale ko fa mu war a jaar du fa jaar ñu tëj ko rab loolu mun na wax loo nit lu ne Sonko laa àndal je ma me lii mais avec le recul da ngay xam ne kii il n'est pas loolu da koy xam looloo tax ma ni des fois ñiy layal ay Walfadjri dañuy politique wala lii defuñu fi lu kenn deful waxuñu fi lu kenn waxul léegi nag lan moo changé ci diggante bi. maanaam Abdoulaye Wade mënoon a muñ loolu lépp ay patron de presse braqué wu contre moom mu xam ne ñi ay ennemis am lan dem ban jël seen ligne rédactionnelle di ko def contre le régime de Wade Abdoulaye Wade baleen fi peut-être ci wàllu fisc yeeg yeneen yooyu mi ngi ci doon tag seen biir mais eggul woon ci dagg seen licence tey moins que ça ñu yóbbu ri nit ñi chômage technique un mois mu jafe léegi lan lañ bëgg xam ne dama fi mës a def benn chronique ma ni est-ce que mënuñu dem ba egg ci dictature médiatique bës saa ko wax am ñu ne ma déedéet mais tey jii li xew Walfadjri nii lan la noppiloo gi noppiloo Cheikh Bara Ndiaye lan la Pape njaay mi ci kaso bi lal la Sëñ Saliou Guèye mi ci kaso bi lan la keneen ak keneen lan la dem ba naan kii moo yor carte kii yorul carte mën a taafantoo loolu pour mën ci téye nit loolu lu muy nuru dem ba ni benn Ahmed Aydara parce que day politique waratul def revue de presse te pourtant am na fi ñoo xam ne tey jii ñu ngi liggéey ci presse ba léegi xam naa ci ay nit di politique nekk ay journaliste am na sax ñu yor seen carte de presse ñu nangul leen ko bañal ko ñee pourtant ñëpp dana patt taxaw di seetaan loolu nag li ko indi mooy. presque bi ci jamonoy Wàdd danoo àndoon tey ji danoo tasaaroo ànd jayante la rek waaye wet jëwa jëwante solidarité bi ñuy wax yépp danga koy taafantoo rek mais ñu bari ci ñoom du dëgg ci ñoom looloo tax gémmin bu waxul dëgg rek wax safaan est-ce que mënuñu dem ba ñi ngi jëm ci ay élections on ne pas dem ba ñi ñu ne ñu jàpp bisu élection ñu ne Walfadjri noppi waatal mën na tijji mais mën na tëjaat yàlla mën na tëjaat parce que ñu bëgg a wax ak li ñu bëgg gëm gëmloo nit ñi danoo gëm ni mën nañ ko waxee feneen mais Walfadjri du leen may ñu wax naka su noonu parce que jamono bi ne manifestation yi am na mais am na fi ay médias yoo xam ne mais ñoo nekkoon lantinooru nguur gi jeune ne parle pas de la RTS des médias privés jox nguur gi opportunité ñu wax lu ne lu dugg ci mais heureusement y a les sociaux mais y a France 24 y a Le Monde y tv loolu tax ma ni beneen yoon bu ñuy fal nan fal ay boroom xam-xam ay ministre parce que ñàkk xam-xam moo jàpp moo moo tax nit jàpp ni mën na tëju rek di def lu ko neex wala muy wax lu ko neex wala muy gëmloo nit ñi lu ko neex parce que jàpp Cheikh Bara Ndiaye pour jeudi du mën a teewati dindi signal Walfadjri restreindre les réseaux sociaux yi maanaam yow boo jëlee àdduna rek tënk tënk ko ci nii léegi-léegi war naa mën a def lu ma neex parce que ñi ma war a tontu ak ñi mu ñi ma war a contre ci wax ñoom ñëpp noppi léegi nag dinaa wax lu ma neex gëmloo nit ñi li leen neex waxal li la neex mais mënoonu gëmloo li la neex kon ñi bàyyi xel ci askan mais gën leen a jox cër damay ñaan président de la république du Sénégal son excellence le président Macky Sall di ko ñaan waaw ah, parce que danga koy ñaan c'est le président de la république barricade bi ñu def kër Ousmane Sonko lu dindi ko li yoon wax ci Ousmane Sonko bu dee ni sañ nañ ko mën nañ ko ñu def ko mais mënoon ni nit ñi nan tegu ci yoon ba pare di jalgati yoon même buñ koy def na ko yoon santaane beneen bi topp mooy Walfadjri au moins ëpp na sëñ sëñ euh, waaye. maa ngi séggalu Modou ñu yam fii sëñ Moustapha Mbacke ah sëñ Sidi sëñ Abdou Lahad contribution yi ñu def joxe ay millions pour Walfadjri loolu message la loolu mooy tijjul faj rek xam na nguur kenn du ko tiiñal te kilifay diine dañoo am teggin mun ñu toog di tiiñal nguur mais message boobu dama bëgg nga décortiquer ko pour nit ñi bañ a gëm la nga waxoon démb mooy marabu yi ay citoyen ordinaire lan léegi nag si ñooñu bu dee dal lay ñaan ngay bañ day dem ba nit ñi jàpp ni li war ma ak yëg gi leen war a jox dafa des te bëgguñu egg foofu parce que ñii ñoo téye suñu réew yi kon Ousmane Sonko nañ ci def jàmm Cheikh Bara Ndiaye nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mu ñibbisi ñu ngi la koy ñaan man damay ñaan wal fajri tamit day ñaan ñu bàyyiwaat tamit mu déroulé doxal kon di gërëm bu baax. El Hadj du Diouf di jéggalu ñëpp nag di baalu àq ñëpp ah di baalu àq Cheikh Yirima ah. waaw actualité bi moo tax ñu wax ci moom mais bu dul actualité ñun mënoon nañ bañ wax ci moom parce que on <laughs> contrôle ko nekkuñu amuñu benn problème ak moom euh, di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di gërëm El Hadj du Top Ablaye ak waa Réussite yëpp ak ñi seetaan solution info TV gën leen di abonné mais aussi bëgg nan ngeen ñi gën a visiter seen YouTube bi ah di ci bàyyi xel di partager. affaire yi di gën a yëg quoi Omar mun Xattaab moo nekkoon ci kàddu gi di ñaanal ñëpp jàmm beneen yoon incha